buur maa ngi lay nuyu bu baax di la siyaar taaliba sëñ Mbàkke Madina bi jërëjëf Seyna Jili ñoo ngi lay nuyu mm-hmm. di la ziar ak di la ndokkeel mm-hmm. di nuyu réew mi yëpp waaye di njëkkee sama niwa ci sama bunt ci cheikhul xaddiim mm-hmm. di mawlaana tabibi rijaalillah cheikhu cheikhu cheikh al murabbi mawlaana cheikhina ibrahima mbakke ibnu sëriñ mbakke madina di ñaan yàlla sàmm ko yàlla dimbali ko yàlla jàppale ko te ki fi toogal sëriñ mbakke madina ci mbakke yàlla dooleel ko yàlla jàppale doomi cheikh Mouhamadul Moustapha al Khalifa di cheikh Ahmadul Mokhtar. yàlla sàmm ko dooleel ko ñuy jël nag nuyoo yoon wi yëpp. Mm-hmm. di ko teg ci loxo al Khalifa cheikh Mouhamadul Muntaqa. ibnu cheikh Mouhamadul Bachir. Mm-hmm. di jël nuyoom di ko teg ci loxo mbokkam mu tedd ba. Mm-hmm. mbokkam ma nga xamante ne que ñoo bokk ci mam balay sax mam maaram. di Seydil Boubacar si ibnu cheikh Mouhamadul Mansour di jaar ba Kaolack rek di ziar ñaari Cheikh Tidiane ya fa nekk. Mhm. Cheikh Tidiane maam Khalifa. ak ki nga xamante ne que mooy Cheikh mhm. di ko ñaanal moom it sama borom dooleel ko waaye di ñëw nag ak ziar ak ñaanal xalifa Cap Vert. Mhm. di al xalifatul muslimina Seydina Abdoulaye Thiaw Laye ibnu Seyna Issa. ibnu Imaam Allah alayhi salaatu wa di ziar doomu aadama yëpp di leen ñaanal di ñaanal way nag. sunu borom defal leen ruj daan barakatan wa rahmatan fi barakat Cheikhul Khadim di ziar suma mbokk mu baax mi di suma nawle di sama mbokkum deret di sama mbokkum ru Fadel Niang mu baax mi nga xamante ne que dama koy wax ni que tey site internet yi tey buñ ci doon tànn tey l'homme de l'année euh, moom mi tey la war a doon dëgg la bu ci président de la république tey doon ci jukki benn doomu aadama di ko takkal tey ordre national du mérite mhm. moom mi la à travers liggéey bu rëy bi mu def à travers Dakar Dakar Buzz Social. Mhm. Euh, muy koo xam ne suma koy gis muy percé lu may neex lay doon damay fàttaliku ko suñu ndogu ba. nga xam ne kër Aly Diallo lañu daje ndeysaan keroog mu ñëw ne waa mais buur dugal leen ma ci affaire yi dugal leen ma ci affaire yi billaay ba ngeen ma ci dugal damay dem ma ne ko billaay di nga ci dugg te bés boo ci duggee di nga dem donc alhamdulilahi rabbi alamin ba bi yàlla defee lool euh, di nuyu kilifa gi baaba di ko ñaanal moom tamit projet yi nga xamante ne am na ci mébét mm-hmm. ci moo xam ci personnel am am ci mébét ci liggéeyal ci réew mi mm-hmm. yàlla na ko sama borom dimbali ba lépp yegg ci kanamam di nuyu tout l' ensemble du personnel de Wassare yow jili bu dooj di la mm-hmm. <laughs> jërëjëf buur am na solo lool gilaa loolu damay yow ci sama lakkal nga xamante ne moom solo laa ko trop Cheikh Mouhamadou Fadel borom ñaari soxla yi <laughs> jërëjëf mbokk internet yu Wassare mm. maa ngi leen di nuyu baax di leen siyaare mm. eh, di sant yàlla julli ci yonent bi di sant Serigne Touba waaye di sant Serigne Saliou sunu yaakaar mm-hmm. di ñaan toujours rek jàmm ci réew mi. di nuy ñi nga xam ne ñoo tëdd ci lal hôpital yi yàlla fëgg seen bopp. ñi jiitu yàlla yërëm leen. di ñaan yàlla def jàmm ci réew mi. di nuyu itam sama PDG Amadou. nga xam ne tam waaw euh, li ma naan lu ma doon moom la gannaaw mm-hmm. yàlla. ndax bi ma ñëwee Dakar Buzz. Mm-hmm. moom moom ma jox ay lengeen ma liggéeyal te lu ma def mu neex ko. mu bàyyi ma ak sama xel may liggéey. Mm-hmm. di nuyu équipe bu Dakar Buzz yëpp. di nuyu sans maladie nag ndax xam nga lu ma laal laal ci maladie. di nuyu bonne volonté itam di ñaan yàlla gën leen na dooleel. di nuyu itam waa kër gi muy wasaare. ndax wasaare tam ñu ngi liggéey ci dëkk bi liggéey boo xam ne tam macha allah. boo fi tàbbee da ngay xam ne danoo yokk mais wàññiwuñu. te loolu mooy liggéey internet. ku mën lu baax defal ku mën lu baax waxal. di ñaan kër gi yàlla gën koo dooleel. ba mu yebbu ko niveau boo xam ne kenn ku nekk danaan wasaare tey yaakaar woon mu yegg si fii. Mm. pourquoi pas parce que liggéey rek koy def. te nit ku am ambition nit ku bëgg baax la. Mm-hmm. di nuyu buur nga xam ndax la dëgg. Mm. ndax moom moo ma njëkk may fit. ci internet. Mm. keroog ñu koy wax ñu ngi daje ngénte Aly Diallo dama ko fàtte ma. <laughs> ma ñëw fekk ko fa. àlli sama géer hmm. di ko wax lu baax xam nga ñun jool fu ñu dem wax lu baax hmm. daal ne ko mais buur kañ la ngay may invité mu ne ma noo ñëwal boo ñëwee man xam naa ne di am dara hmm. te walaal azim ba ma dikkee gis na loolu di ñaan yàlla gën koo dëgëral te dooleel ko bàyyi ko ak xolam mu nit ku baax nag nit koo xam ne li ma naan weexal sa nawle du la tax a ñuul liggéey bi yaatu na seentu asamaan la jàtt buuxante nag ku nekk jël li mu war a jël rek te xam ne liggéey bi jeex Mhm. di la gërëm nag sama xarit nga sama doomu day nga donte sax yaru yaru woo. waaye ma ma gërëm la rek. du mën a ci. Mhm. bi la bi buur. bi ngeen di daje ci ngénte Ali Diallo boobu. Mhm, ci lan la la fekkoon ci lan nga doon yëngu. waaw boobu fekkoon na ma nekk ci leneen di liggéey. di jaay xam nga doomu géwél day nangu am jom. di teel a xëy guddi wàcc di am ambulant nag. li laaj nga ma question bu ma bu ma neex. parce que tooguñu woon di xool. man doon liggéey di góorgóorlu yokkal ma jaay la. di dem ak a dikk di ko ak a fëgg jaay rek jaay naa fëgg jaay lu ne jaay naa caleçon jaay set lu ne jaay naa ko ngir bañ rek jàppal ak buub far yàlla bi yàlla defee nag ma gisanteeg buur waxtaan ak moom ci loolu nag mm-hmm. su ma rak maa ngi koy gërëm aussi tam Bamba bokk ndey ak mu nekk ak buur moom itam ak Actu mm-hmm. di fa caméraman mm-hmm. keroog moom moo ma njëkk ne Dakar ba soxla nan la demal dakaar Buzz après parce que bàyyi naa fa sa numéro dina la woo. Mhm. Dakar Buzz woo ma. boobu defe naa Ngone moo fa nekk nekkoon. boobu Ngone fa nekkoon ma xëy Ngone woo ma. ne ma Fadel Niang ma ne ko waaw mu ne ma ne ma yaay rakk frère Bamba ma ne ko waaw ne ma dana la soxla fi ma ne ko kañ. mu ne ma ginnaaw suba ma ne ko suba laay ñëw. xam nga li ma woo ma ne xam ko woo ko daara ko saw ma ne ko suba laay ñëw. ci suba nag ma ma sangu sol yi fi géwal nag xam nga daloo bëgg lu baax. trois pièces xam nga sol suñu yëf la. daal dem wuy ji waxtaan ak ñoom Mm-hmm. bi ma demee tam ñoom ñu dalal ma waxtaan ak man. Mm-hmm. wax ma ci ne ma ci nii ngay doxalee xam nga nii ngay defee nii leen ko bëggee. Mm-hmm. par yàlla def nag sama bëgg-bëgg ak seen bëgg-bëgg yàlla boole ko. loolu moo may tey opportunité ba ma lii ma am ba tey foofu la sox ko gannaaw yàlla bi daal buur moo ma appui nag. ne ma ñëwal am nga cër ci média bi am nga cër ci ci ci liggéey bi. te bi mu ñëwee te wax dëgg yàlla li ma wax lépp gis naa ko. ngeen dem ba jamono ñëw buur. yow mi nga xamante ni tey lépp ci mën naa ne ci presse en ligne bi ci la la fekk <coughs> bokk nga ci ñi nga xamante ni wala bokk yow yaay nit ku njëkk ñu lay gis ngay ngay ngay ngay diviser làmb wala nga ko daan jël boo paree gars yi di la laaj lii fan lañ ko yóbbu ndeysaan mu doonoon loo xamante ni ñu bari yaakaaroon nañ ni dangaa ñëw pour filmer comme ni ñu daan def am envie filmer ba tey làmb toll fi mu toll loolu bu boo ko gisee actuellement site yu bari ñëw ban yëgin ci waaw xanaa sant yàlla parce que xam nga nit dafay am gis-gis. Mhm. Euh, ku ne xam na ni euh, jamono bu ci nekk àdduna bi dafay dugg sur une nouvelle air numérique. Mhm. bu njëkk télé yee fi nekkoon bousculade bi am tey ci internet bi tey moo fi nekkoon. Mhm. boobu y ay canal info. <laughs> y ay <laughs> ay télé école yeneen ak yeneen. tey gis nga dem nañ ba mu yàgg euh, les les télévisions rek ñoo fi des. rajo yi tamit aussi noonu la demee noonu gisoon nga fi ay Aabi FM. ay Fagaru FM ay Soppi FM jamono mooy tëddee noonu. Mm-hmm. man li ma dugal Sénégal sama benn xarit Mansour lañ doon jouer théâtre la maag koor gi. Mm-hmm. ndax boobu téyeur laa mais en même temps comédien laa woon nag. ndax moom mës a nekk suma affaire. Mm-hmm. Euh, ñu tourné ba pare moom boobu Sénégal boo jumul moo fi nekkoon ak Sénéweb. ak. leeral aussi fi la ko fekk. Mhm. Euh, defe naa bu ma juumul ñoom ñoo fi nekkoon ah Seneweb ak leeral ñoo fi nekkoon. Mhm. ak Dakaractu fii la ko fekk. Mhm. mais ñoo ñu pratiquement yënguñu woon ci làmb nekkul woon seen seen affaire. Euh, Mansour ne ma booy gis naa la ci làmbi mbedd yi. boobu diggante Grand Yoff Parcelles. lu fa am ci làmb man ngay woo man maay def micro central soo da wàdd mu mën a way mi ndey sànn <laughs> moom la la àndal ñoom ñu nekkoon ñetti ñu jigéen bokk ndey ak baay mais ay siin maxa la ñu woon mm-hmm. boobu yoruma oto yoruma dara imagine condition yi bu làmb daan am man maay waxaale seen cachet maa leen daan yóbbu làmb bu may ñibbi si maa leen di delloo si mm-hmm. boobu ñoom lastandeer ñoo fi nekk di bëre ñoom zarko ñii di soog ànd ak ñoom Modou Lo ndax boobu ñoom Malick Malick euh, Malick Matraillais ñooñu. ñoo ñoo fi nekkoon ay ñoom Mathieu Pereira ñoom Tafa Gueye de di soog a luqeeku xam nga doon doon ay naa ni mbër ñoom mbës nekk ay xale yu tuuti je me rappelle ak ñoom ak ñoom jëf jël ñoom Moussa Ndoye Timbar Masi nekk seen digg doole ñoom Matar seen rog mbalax donc ñoom soose grand bi am ay mbër ñoom Pamourlo nekk ay ay ay jeunes xale yu tuuti mm-hmm. ay ñoom l'enfant noir ay ñoom góor fi yëpp jàngee ci sama kanam bëre mm-hmm. may wër mbappat yi nag daanaka daanaa dem loppat vendredi samedi dimanche alaaj Malick géey mu baax mi tey nekk seen TV moom ma njëkk wooy Bour Gueweul ci ñoom laa ko njëkk dégg hmm. wallahi azim alaaj Malick Guèye bu seen TV hmm. tey def mbaboor mi ko baax ma ñëw mu ne ma talent bi nga am doo fi ñëw tey may wax am waxal ba giir ñi ñëw ma soog a wax ndeysaan <coughs> na ci ne ci Mansour ne ma kon suba xam loo bëggoon booy. tournel benn émission Mansour dafa jël risque. ne ma tournel émission ma wan ko kilifa kër gi. boobu Sénégal amuñu siège amuñu dara. Mm-hmm. caméra ya fa nekkoon sax benn sedd moo fa nekkoon Bira moo ko moomoon. Mm-hmm. ak benn MacBook Pro bu bees Mansour aussi moo ko moomoon. Mm-hmm. borom kër gi Sidi Mbacke ma di ko nuyu de passage moom tamit ku baax ku ma ku ma nawloo te bëgg ma lool. Sidi moom nekk Europe res plateforme bi. comme Zarko laa maaseel daanaka ñoo bokk ndey ndax ñu ne seeni géew la judd. ma woo na ko booy fa nekk mu ne maa ngi cité ma ne ko maa ngi ñëw keroog may dem Mansour moo fay taxi bi. Mansour mooy suma caméraman bi nekkoon Sénégal. ñu dem tourné Mansour dugal émission bi émission bi def. la gars nag a compris ne effectivement lii ni koy jaay ci télé bi war nañ ko mën a jaay ci internet parce que moom cible boobu mooy les sénégal de la diaspora. Mm-hmm. ñoom boobu amoon nañu problème mu seetaan làmb ñu wan ko vidéo bi mu xëy la lendemain woo ma yàlla def mu fekk ma sama kër yaay sax mu woo ma ne ma c'est buur ma ne ko mu ne ma man la diw ñu waxtaan mu ne ma vidéo bi nga def de am na solo sincèrement. bëggoon nag nga intégré weer nag mën naa la fay cent mille. ma ne ko man day li may daw lépp ñaar ñii rek a tax sama mère beeg sama paa bi. balaa ma lay tontu xaaral ma laaj leen. ma ñëw wax ko paa bi mu ne ma demal nga waxtaan ak ay mhm. ma ñëw wax ko maire bi dama li mu mën a gëm te xam ko mooy barke Serigne Babacar Sy mhm. lii nga jël xam naa ne maa tax nga jël ko mhm. demal nga jël ko te xam ni di nga ci am lu jéggi sa jort Sidi Wade ma ne ko ah, maire bi nee nag mu na ñu ne ci nag commencé yàlla may ma benn facilité boo xam ne ci mbaaxam mooy ci lu ma bëgg a wax dama ci wax. Mm-hmm. yàlla moo ma may loolu nag. tey bu ñu def émission tey soo ma bindaloon nii damay gàtt. Mm-hmm. donc je préfère jàpp sama ñaamu nekk à l'aise donc ñuy doxal ci loolu yeneen site web bi nag commencé comprendre ne que nag affaire bi kon ndekete audience bi mu am ci internet. Mm-hmm. amul lu ko am. dëgg la ñeneen ñi commencé ñëw muy commencé yaatu. te wax dëgg yàlla c'est un plaisir parce que boo nekkee ci biir ba nombre bu doy waar ñëw fekk si leen ci kon cela veut dire que loolu nga doon def baax na mais ñu bëri nag gëmuñu ko woon. Mm-hmm. danga nga naan jël mbër sax suba mu xëy woo la waaw bu li nga ma jëloon démb gaañan na laay dépassé aan ko. boobu xamuñu lien boobu liñ ci xamoon. Mm-hmm. mooy Facebook lañ ci xamoon. Mm-hmm. pratiquement. ak Messenger ak Viber. boobu sit bi fi nekkoon comme bu mag Face Dakar la woon. ay Seneweb peut-être ay Dakar ak ñoom ils étaient plutôt politique seen article ci wàllu politique la mm-hmm. donc ñu commencé xuus nag ci people bi nag ak ci yeneen affaire ba gars yi gëm internet donc seen fierté